seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi déndee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo leen may li ci yéene kaay cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dalti leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéen bi nga xamante ni jamono ji ñuy wax ak yéen bëri na ci ay candidats yu ñuy recalé càmbaraguñ sax seeni i dossier yéenekaay bi ne ay piège ay surprise dong nag la ñu gis ca conseil constitutionnel ci ñaari fan yi nga xamante ni commencé nañoo càmbar nag parrainage bi en tout cas ci démb démb la lu tolloog ñaar fukki candidat moom lañ doon càmbar seeni parrainage waaye ñaar kase rek dong nag ñoo ci mujjee mucc ñi ci des ñëpp nag dañ leen mujjee recalé yéenekaay bi ne Idrissa Seck am na lim gu takku goo xamante ni war na ko xoolaat ci ay signaturam pour mën a mucc bokk ci élection présidentielle yi Aliou Mamadou Dia moom tamit am na ay parrainage yu mu war a mottal naka noonu Pape Djibril Fall Serigne Mboup ak yeneen i candidat yoo xamante ni nii fi mu nii laa la wax ñoo ngi ci gudd gu setagul yéenekaay bi ne doublon yi laa la wax mu ngay yàqal na candidat yi fichier boo xamante ne ni kenn mënu ko exploité am ci bi yi nga xam ne mi ngi def ay révélation yu rëy nag ci candidat yi dèjà fukki candidat ak benn yóbbu nañ seen i dossier ci conseil constitutionnel fekk na joxewuñu nag seen caution yëf yi nag kenn xamul lu muy saf ñàkk respect wala ñàkk xam lay doon est-ce que conseil constitutionnel dafa war a gën a mën a méttil nag mbir yi ngir candidat yi gën a wàññeeku le quotidien yéeni kaay ne danger de fi mu toll nii ci ku mu nekk weesul ndaamal kajoor mi ñuy wax ne mooy chef de l'opposition ndax lu tolloog 8613 doublon la am laa la wax ci parrainage bi war na bi laajte ni moom Mbawal Kajoor lan moo tax mu am jafe-jafe gi et pourtant lu dul benn yoon dem na ci ay présidentielle mbaa cette fois ci nag du ko baare ba du bokk ci élection présidentielle yi en doublon yi bu ko réglewul balaay 48 mooy moom Idrissa Seck du bokk ci élection yi bu dee Alioune Sarr dañ ko mujjee recalé Jean Baptiste Diouf dañ ko mujjee recalé beneen candidat bi ñëpp doon bàyyi xel démb ca conseil constitutionnel weesuwul candidat pur bii di jéggi parrainage yi Walf Quotidien def taxaw seetlu ci kan mooy le candidat du parti de l'unité du rassemblement moom Aliou Mamadou Dia mi ñuy duppee le candidat du peuple wax ni ki ci jafe-jafe askan bi entretien exclusif la yéenekaay bi def ak moom waaye bu mi ba ci transport bi commerce bi moom Aliou Mamadou Dia di xamle ne amul benn benn rek boo xamante ni fi mu toll nii ña cay yëngu sëngee mu ñu ndax ay yoo xamante ni la ñu nekkee moom Aliou Mamadou Dia jàpp ne mooy solution bi ministre bu yoree réew mi lépp lay jaarale ci yoon Sénégal mën a am naataange le point actu ne bu nu moytul kay ci élection présidentielle yi ñu jëm benn jigéen du participer ci élection yi ndax ñoom candidat yi nga xamante ne ay soxna lañu ñoom ñëpp nekk fi mu toll nii ci risque li leen ko teg nag weesuwul ñàkk bootu ci ab appareil politique bu dëgër këcc amul kenn ci ñoom koo xamante ni parti politique bu ñu xam am doole moo koy gunge ci élection présidentielle yi source def taxaw seetlu ci candidat yi nga xamante ni dañ leen a recalé ne lim gi laa la wax mu ngay a bëri ñii bu moom ca début ba lañu ñu xam ne ñoom du ñu jàll sax laa la wax ci parrainage bi yéenekaay bi ne fi mu toll nii ca caisse de dépôt et de consignation administration bi récupéré na lu ëpp 2 milliards 400 millions te jëleewu ko fenn nag fudul ci dépôt de caution bi ñoom candidat yi nag képp koo xamal nañu ne dinañ la remboursé nag sa 30 millions bu dee nag ñi nga xamante ni jàll nañu parrainage bi ba noppi conseil constitutionnel validé seen candidature ci élection présidentielle weesu na ko ndaxte bisu tey bii ci la ñuy càmbar dossier de parrainage yu Boun Abdallah ak Aly Ngouille Ndiaye jëlikaay bi tuddee leen ñaari rebelle yoo xamante ni fi mu bu nu moytuwul ca conseil constitutionnel lañ leen di mujjee bloqué bukki ba màtt nag Assome Diatta boo moytul ñoom ñaar ñii dana leen màtt la leen doon jikkay moo di ñu booloo ngir mën a mucc nag ci waa Benno Bokk Yaakaar gii ñu reetaan leen en tout cas Cheikh Bamba Dièye moom dañ koo mujjee recalé Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom tamit dañ koo mujjee recalé deuxième tour moom ak Pape Djibril Fall ak Serigne Mboup yéenekaay bi def taxaw seetlu ci candidat bii di Malick moom d'accordul benn yoon laa la wax ci machine bii nga xamante ni mooy def filtrage bi moo tax ni ki tey jii dana dugal nag recours am en tout cas Imam Ndiaye mi porte-parole association des imams ouléma wu Sénégal yi mu ngi sàkku ci conseil constitutionnel lu bi ngir candidat yi gën a mën a wàññeeku nag ci élection présidentielle yi ñu jëm Vox Populi moom def taxaw seetlu ci candidature Karim Meïssa Wade bi nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci biir bi am na ci ay chef yu mag ñi nekk nekk ci biir réew meeg bitim réew dañuy fas yéene jàppale Karim ay ingénieur ay professeur ay médecin ñoom ñëpp fi ñu miser moo di ci candidature Karim ndax jàpp nañ ne mooy solution yéenekaay bi ne moom Karim Wade nag war na jaar ca conseil constitutionnel démb nag ñaar fukki candidat la candidature lañ doon càmbar seen parrainage waaye ñaari candidat rekk kase nag ñoo ci mujjee mucc weesul professeur Daouda Ndiaye ak candidat wu parti de l'unité du rassemblement bii di Aliou Mamadou Dia donte am na quelques doublons yu mu war a mottali waaye à part ñoom ñaar candidat yi ci des ñoom ñëpp lañ mujjee rek Calais Ibrahima Lo di mandataire professeur Daouda Ndiaye ba mu génnee ca conseil constitutionnel bañ ko laajee leen rek la xamle mooy logiciel bii def filtrage bi nag amul benn problème képp ku liggéey sérieusement comme ñu nag waa parti pur da nga mucc nag ci parrainage bi yéenekaay bi defaat taxaw seetlu tamit ci candidature Idrissa Seck bi nga xamante ni mu ngi ci danger ndax lu tolloog doublon la am fi mu toll nii di lu yéeme loo xamante ni ragal nañ nañ lii nag nekkul histoire ci ñoom ndax 2019 tamit même situation la ñu dundoon ren sax moo xaw a tane ndaxte amuñu benn pression waaye 2019 nii la demee woon te teewul président Idrissa Seck participé na ci élection présidentielle ya bu dee Cheikh Bara Dolly Mbacké moom jàpp na ne Macky Sall moo ko recalé ndax xam na ne moom rekk kase dong nag mooy danger ci kanamu Amadou Ba bisu tey bii nag am na candidat yu fës yoo xamante ni nañ leen bàyyi xel ca conseil constitutionnel ndax ci la ñuy càmbar nag seen parrainage yéenekaay bi na Aly Ngouille Ndiaye jaar tey Boun Abdallah Dionne dana jaar tey Karim Meïssa Wade dana jaar tey Malick Gakou dana jaar tey Habib Sy dana jaar tey Souleymane Ndéné Ndiaye dana jaar tey Mamadou Diop Decroix dana fa jaar tey Babacar Diop dana fa jaar tey ak yeneen i candidat yoo xam ne ñoo ngi leen di xaar ca conseil constitutionnel l'observateur na ndaamal Kajoor kay moo nekk ci guddi gu bët setagul nombre de doublons yii fi mu nii moo ko bëgg a jommal te lu wértéwul moo di gis nga bu paasewul parrainage bi mooy du participer ci élection jii ci élection présidentielle yi mooy c'est fini pour moom laa la wax la république du Sénégal ndax dootul bokk ci élection présidentielle moo tax moom ndaamal Kajoor fi mu tudd ni laa la wax mu ci guddi gu bët setagul léegi fa yéene kaay ne ma wax leen surprise yi am démb laa la wax ci conseil constitutionnel yéene kaay bi na am na ci candidat yoo xam ne échec total la du am amul kenn koo xamante ni logiciel bi bàyyi na la am na ci limu candidat yoo xamante ni nag moom mënatuñoo bokk ci élection yi dañ leen cee génnee nag d'office yéene bi di leen lim ne Mbàkke Sarr dootul bokk Alioune dootul bokk Amidou Dem dootul bokk Jean Baptiste Diouf dootul bokk Khadim Diouf dootul bokk Birima Mangara

professeur Daouda Ndiaye daanaan bi jàlle na nag ci parrainage bi mu des nañu lijjanti ay dossier am bu dee parti pur moo mënul nekk surprise ndax 2019 tamit nii la demee woon amuñu woon problème mu parrainage laa tribune yéeni am problème mu parrainage kay fi nii la ñuy jooy mooy fichier électoral bi est-ce que sax fiable na yéeni kaay bi dem sax bay laajte ñaata fichier électoral moo am laa la wax ci réew mi ndax bu ñu demee ba ku dugal sax ay parrainage am ñu ne nit ñi nga dugal fii nag nekkuñ ci fichier électoral bi lii jar na taxaw seet lu ñu laajte ñaata fichier moo am bu dee njiital gëm sa bopp nag bugaan ngay ngay bàkku ndaxte yàgg naa signalé nag ne fichier électoral bii ñu ko lijjantiwul léegi de danañu toroxal ñun waa opposition bi te li ni mel nag mu ngay commencé dessiné wu boo moytul dana bëri ñoo xamante ni duñu bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm le regard ne élection présidentielle yi kay la ñu lijjanti mooy ñu fexe ba ñu bañ koo reculer rek bu ñu ko repousser bu ñu ko reporter te bu ñu sukkandikoo ci plateforme bii di FIT Aminata Touré mi ngi xamle ci biir yéene kaay bi moo concerné woon nomination membre soxlaatuñu cour suprême di ko càmbar ndax bés bu ñu retiré nag décret bi ni mel danañu tasaat sénat annulé élection présidentielle yi ñu jëm xam nag situation bi fi réew mi toll askan bi ni ñu sonne ak ñi ñu xiifee marko bëgg changement ñenn ñi nekk ci biir kaso bi jafe-jafe yi moo tax parti politique yi nekk ci biir fit yépp daal di reculer ne bëggatuñu cour suprême la di càmbaraat décret bi ni mel et pourtant tey jii nag lañ ko waroon a càmbar du kaa bu nu gaawul moom ba cour suprême tracé ba kase nag décret bii mooy élection yi moom dootul amati amul parrainage amul ay dossier validé ak ñàkk validé élection ci boppam la ñuy reporté <laughs> politique daal kenn xamul lan la rek ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm mbokk yi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 gaawal rek jokkoo ak pharmacie Al Maktoum yow mi tëlee amee faiblesse sexuelle doxal nànk dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yéen ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñu nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñu nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum